بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نيو بوكي في تابيك تجي جيت الكليفي لنوكال سليم حسن tey ñaan yàlla fay ko aw yëw ci lii muy def ñoom ñu koy àndal ñu ko sëriñ Abdul Ahad waxee waxtaan waa ngi jël koon ci yi dëkk yi dëkk tariixa yi moom ko luy dëkkee nag dañ koy mën a jàppee ci ñaari anam am na lool day luñ war des te yombul luñ wara def te yombul manes na ko tudde luy dëkke lu luy taxaw sunu yoon itam dinu gàllankoor moom it manes na ko tudde luy dëkke yaar yëpp nag léeg-léegi ñu daje kon mën nañoo jëmi waxtaan wi ci yaari wàll yooyu yëpp mooy kon lan moo war ñeneen ci tarixa yi te mu yooyu la leen di dëkk ak it la leen cay gàllankoor it ñu koy mën a moytoo tarixa yi nit ko xam ne Sénégal xam nañ li li ñuy tuddee tarixa loolu rek lañ dugg ci tarixa yi li leen di dëkk mooy yi nga xam ne yu leen war la te mën naa am du yombe noonu yooyu da ca jiitu mooy lañ nekk ñu xam ko ñu xam ko war gar woowu moo jiitu moom mooy dañoo war a xam dañu nekk lan la kenn ku ne tariixa ba mu nekk daa war a xam lan la lan la lan la yan fonk la am ci lan lañ ko tabax yan tislaay la am loolu njëkk war mooy li ñu njëkk war mooy xam buñ ko doon joxe misaal nag ci murit gi buñ ne lan mooy murit gi dañ naan lan mooy ay ponkam lan mooy ay cëslaayam ponki murit gi moom xam nañ ko sëñ bi tudd na ko ci béréb yi wuute dëgg-dëgg yetti ponk la am am na nag yeneen yuñ mën a tuddee ay cëslaay waaye ponk yi moom sëñ bi boole na leen ci ay béréb yu bari di leen tudd muy xam-xam bu am njariñ jëf ju baax teg jiin yu ñu gërëm al ilmu naafi' al-amal salih al adabul mardi yoyu sëñ di wax na ci ay bërëb yu wuute di leen boole am fu tuddé sax na ñoy ponk yi ñooy ponk yi xam-xam bu am njariñ la te jiitu mooy xam xamu diine xam-xamu diine ne kon li njëkk li njëkk a nit ak murit mooy mu sàkku xam-xamu diine bu ne xam-xamu diine mooy la ca munta ñàkk la cay farata la cay farata mooy lay tax nit ki mën a def li ko yàlla digal te kenn mënu ko caa wuutu moo koy defal boppam rek li ñuy tuddee faratay jëmm yi kon xam-xam bay may nit ki mu xam loola moom xam-xam bu mënta ñàkk la loolu faratal sëñ bi wax na ci bërëb yu wuute yi di dénkaane ne moom la ab taalibe war a njëkk a sàkk lu njëkk a war ci taalibe mooy mu sàkku xam-xam boobu awwalu waajibin alal muriidi tahsiilu zaadihi mina tawxiidi teg te ca des kon loolu mooy li jiitu ci ab murit ci lu mu war a euh, def mooy sàkku xam-xamu diine ku xam xamu diine nag xam-xam bu am njëriñ bu mu jateg bu ne baax na ndax sëñ noonu la ko jàngalee dafa wax ne xam-xamu diine moo jiitu ñoo jiitu ci xam-xam yi waaye nag beneen xam-xam bu am njëriñ bu nekk it baax na hada وخير العلم يا ذوي العقول علم مقرب لمن منه النقول كالعقد والفقه وكالتصوف وكل علم بمنافع يفي kon xam-xami diine yi ñoo jiitu buñ jàllee nag beneen xam-xam bu am njëriñ bu nekk ndax xam-xami diine yi ñooy defar nit ki ñooy defar nit ki nit ki nag bu defaroo ba noppi nag lay war a sàkku xam-xam yi muy defaree moom dund gi mooy xam-xam yi am njëriñ ci des yëpp kon day moom mooy rek xam-xam boo njëriñ wàllu xam-xam moom ni ci sëñ bi wax ak ci doxee ak ci soññee foog naa ne jërul ci sore jërul ci sore wàllu jëf ju baax jëf ju baax moom dana ko tudde itam léeg-léeg jaamu yàlla léeg-léeg mu ne al ilmu léeg-léeg mu ne al amal léeg-léeg mu ne al amal léeg-léeg mu ne al ibada al ilmu wal amal léeg-léeg mu ne al ilmu wal ibada kon mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy jëf ju baax la tey ci maanaam yi gën a yaatu nit ñi dinañ wax jaamu yàlla te jublu ci maanaamu xat waaye am na maanaamu gën a yaatu maanaamu xat mi mooy lu mel ne ay julleeg woor ak yu mel noonu waaye maanaam yi gën a yaatu na mooy lépp loo xam ne rek naa naag da yàlla bëgg nga topp yàlla rek topp ko mooy sa dund la cay def lu ne rek nga jéem mu dëppoo ak na ko yàlla bëgg lépp lu yàlla bëggul itam rek nga moytu loolu moo jaamu yàlla te mooy jëf yu baax kon jëf yu baax yooyu mooy ñaareelu ponk bi te sëñ bi wax nañ ne ñaari ponk yu njëkk yooyu du yu ñuy tàqale kenn du leen tàqale dañuy ànd dañuy ànd xam-xam nag mooy dal taay mooy jiitu waaye mënut a ñàkk ànd rek jëf ju baax ndax boo am ko jëf ju baax lu am njariñ njariñ lañ waxoon ne xam-xam boo am njariñ bi li sëñ bi jëf ju baax nag du doon xam-xam bu am njariñ loolu da wax ne dafa wax ne jëfee ko mooy meññeet ma jëfe xam-xam mooy meññeet ma buñ ko jëfewul du am meññeet mooy kon day mel ne amul njariñ jëf ju baax jooju nag ñaari wàll la am na ci loolu farata la am na ci loolu du farata waaye lu ñu santaane la farata nag moo jiitu moo jiitu moom la nit ki war a njëkk yittewoo bu ca noppee nag leneen lu baax lu dul farata lu ne nag lu mu ca mën a def mu def ko ci waaye farata yi ñooy yi munta ñàkk yi munta ñàkk sëñ bi noonu la ko jàngale itam ne dañoo war a jiital farata yi bu jàllee nag ñu teg ci sunna yi sunna manees na ko wax rek lu dul farata rek te doon lu ñu sàkku rek na ko euh, waaye lépp mooy loolu santaane nañ ko waaye ak lu ci nekk farata kon farata yi ñooy jiitu bu jàllee nag sunna yi topp ci yàlla wax na ci hadis bu ñu yonent bi nett sallallahu yàlla wax ne sama jaam du ma jaamoo lu ma gënal li ma farataal ci moom mooy mun ta def ngir sàkku sama ngërëm mun ta def lu gën lu ma gënal li farataal ci moom foofu la tàmbulee ku ko def ba noppi nag lu mu a teg kii naafila mu mu def moo tax mu teg kenn su waaye jaam bi nag dana sax ci ay naafila naafila mooy lu dul farata rek te ñu sàkk ko ba ma sopp ko man yàlla kon day tàmbalee ci farata yi bu ca noppee nag naafila yi nag moom lu mu ca man mu di ko def mu di ko def ba àgg ci yàlla sopp ko bu ko soppoo nag soppee nag di ko taxaw ci yëpp kon mooy farata yi ñooy jiitu bu amul lu nit mën def ci naafile itam du ci mën a amee loolu loolu di yàlla sopp ko day fekk mu tabax ko ci farata yi ba noppi góorgóorlu ci naafile yi nag ñu tee rawante nag ñu tee raw nag mën a àgg ci yàlla sopp leen féete leen waaye tey xam nañ leen waaye daanaka lu am farata rek naafila mën na caa am julli am na ca luy farata waaye am na ca lu bari luy naafila naafila moom amul fu mu yem farata moom am na fu mu yem julli yi ñooy farata ak aju ak ajuma waaye naafila yemul fu mu yem koor woor weeru koor mooy farata waaye naafila yi amul fu muy am at mi yëpp lu dul bi siñ ci tere bu ci wax rek euh, nit ki mën na tey euh, naafila ci koor naka noonu bu dee ci joxe alal asaka farata waaye bu jàllee nit ki mën nay joxe ci alalam di ko naafila lu ko soob lu amul fu mu yem ci anam yooyu aj noonu ku xas aj yenn yoon luñ ca defaat moom it naafila la Euh, bu ko defee nag naafila yooyu nga xam ne lii lu bari la moom itam kenn amut amut amut fu mu waaye yooyu ñu tudd ci lañ mooy yi nga xam ne ñoom dañoo am cosaani farata am na ci lu jëm ci lu mel ne xeeti tudd yàlla alquraanu karim jàng ko jiitu ci jàng alquraanu karim moo jiitu ci euh, lu ñuy mën a def ngir di ko fàttalikoo yàlla di ko tuddee yàlla waaye bu dee ci murit gi xasida sëñ bi moo ci topp moo ci topp nga xam ne moom it xeeti tudd yàlla yu wuute ñi ngi ci ak xeeti ñaan yu wuute ñi ngi ci te sëñ bi waxan boppam it ne yonente moo ne ko boo alquran jàllee hadis jàll am mbindam moom moo ko gënal yeneen wax bi mën di daw kon bu yaa wee jàllee moo cay topp leneen lu nit mën a def jàng ci lu baax nag loo xam ne da ciy fàttaliku yàlla li ci tudd yàlla ba tey baax kon amut fu mu yem amut itam loo xam da ciy tënk rek bañ a jàll ca la ca des alquran moo ci gën waaye du tey bu tey bu ko jàngee di jàng leneen hadis am na ay ay ay ay tudd yàlla yu ci ñëw moo ca topp xasida sëñ bi moo ca topp waaye lu ci nekk itam du tax mu yam ca dana ko def teg te leneen euh, moo tax sëñ bi joxe woon ndigal ci ne jox naa ndigal ñi wékku ci man jox naa leen ndigal fu ñu fekk waxi nit ku baax ay waxam yoo xam da ko nos ngir ñu koy jëfandikoo ci tudd yàlla fu mu ko fekk rek jox naa ko ndigal ci mu jëfandikoo mën na koo sañ jëfandikoo sañ na koo jëfandikoo kon mooy wax euh, na ndigal ñuy jëfandikoo lépp lu baax lu man di doon bu alquran ak euh, sunna ak ay xasidaam jàllee yooyu kon manees naa wax ne ñooy euh, wàllu naafila amul fu mu yem moom kon jëf bu baax daanaka manees naa wax ne kon mooy lekului luy farata ak lépp luy naafila mooy lu dul farata tamuy ku ñu kon xam-xam bu am yari def bi baax ñettelu ponk bi tagin tagin ya rek tagin ba do ala bi da am bu ñaar yek rek tagin rek tagin nak teggiin gërëm yuñ gërëm gërëm mooy yiñ santaane ak anam gën ko santaane ndax lu ci nekk it balaa am njariñ day dëppoo ak nañ ko santaane kon bu ñu nee rek teg daa lañ santaane moo ko doon lu ko nit ki defal boppam te du luñ santaane mën na ko bañ a doon yore yi nit e, xam nañ ni mu toll ci yoon wi ni ma ko waxee ñett yooyu sëñ bi di leen di boole ci lu bari waalam bi ann al ilma wal amala ka adabin tuksibuka al kamala yett yi na nga xam ne xam-xam ak jëf yu baax yi ak i teggiin ñoo lay mën a may ak mat man lam yaxrus min ajri shay'an walam yuhibbaha fa innahu nafsa zalam yett yi ku am lum ci amut ku sàkkuwu ko itam bëggu ko itam na xam ne tooñ na boppam wa alam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafduru man qad fadula la bi intisabihi liman qad ihtala min jihati al ansaabi ummin wa abi fa fiihi majtahid maa taadubi wala wa fi taadubi ba tey ñett yooyu la waxaat xamal ne xam-xam ak jëf yu baax yi ci la te mooy diine ci la nit ñi di wuutee ci la ñuy rawante ku féete kaw rek ci la féetee kaw ku gën ci la gëne waaye duñ gëne ciw askan askanoo ci ku kawe taxul nga gën keneen li ngay génnee rek mooy xam-xam ak diine moo tax mooy kon na nga farlu ci yooyu nga boole ci nag yar ak teg yi yar ak teg yi gis nan na jox la xaaj loolu rek ko tax loolu rek moo ko tax a jóg loolu rek ko tax a jóg ba daa nañ ko wax wax naan mooy kot mooy kot mooy kotu murit kot ni ko de la route amee xam na kuy jëfandikoo yoon te bëgg a mucc da cay tënku naka noonu ab murid tam bu ji di nekk ci nax ju xadar xaaj bu njëkk daanañu wax léeg-léeg buñ gisee ku def lu juunu mbaa mu wax lu juunu dañ naan xanaa dafa jàngut na loolu day wane ne kon ay teggiin ak yar day ba solo ci yoon kon yooyu yooyu ñetti ponk yi ñetti ponk yi kon ñooy yooyu am na lu ñu mën tuddee cëslaay bokk na ci fàggu lu lew wala liggéey liggéey lañuy wax noonu waaye sëñ bi moom fàggu lu leew lay wax ndax liggéey bi mu bëgg moom mooy liggéey bi nit ki mën a amee lu lew waaye du liggéey bu mën di doon rek moo tax danaan fàggu lu leew fàggulu la it ci cës laay yow mooy murit la bokk moom it day lu sëñ bi soññee wane ne fàggu lu leew mooy gën a mën a dimbale nit ki ci muy dunde lu leew te dunde lu leew mooy tax nit ki jaamu yàlla yomb ko def lu baax yomb ko mooy taxit bu defee lu baax mu amal ko njëriñ فكن حلالا إن أردت أن تطفي الله ورسوله يا هذا المطيع ko bëgg topp yàlla ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na ngay def na ngay dunde na ngay dunde lu leew kon dunde lu leew li ko gën a mën a maye mooy di liggéey di fàkku lu leew di sàkku lu leew te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom it soññee woon ci bu yàgg waxoon na ne nit ki def liggéey buum liggéey ab liggéey rek bu bu dagan bu mu cee jëlee lu mu tuut tuut tuut tuut moo gën mu bañ koo def di wéeru ci nit ñi bu ko joxoon misaal ci taxam taxam dem taxani rek amu say ñëw jaay ko lu cee jóge du am solo waaye nag loola moo gën fopp mu bañ koo def tey wéeru ci nit ñi yonente bi sallallahu wa sallam mas naa nuyu nit jox jox ko loxo jox ko loxo tey ci loxo bi yëg ñagasaay bu ñagas tam xam ne ab liggéey moo ko waral mu ne loxo bii day yàlla bëgg na ko yonente bëgg na ko sallallahu wa sallam liggéey bi borom bi def mas naa toog ak saxaaba yi am waxambaane wu am kàttan wu leen romb bi ñu leen rombee ñoom mii muñ ko te xare ya buñ daan xare daawuñ ko miin daawuñ ko gis mu bokk ci xare ya ñun tey kii day dooleem ji bu ko defoon ci yoonu yàlla yoonu yàlla boobu dañ jàggul bu xare yi yonente bi ne moo ne day bu fekkee dooleem ji da ko def ci liggéey bu muy fàggoo lu mu faje soxlay boppam fajal ci ak njabootam soxla ak njabootam seeni soxla bu demee noonu mu ngi ci yoon woon kon mooy bu fekkee noonu la demee moo tane ca xare ya ñooyam naam loola moo ko mooy dox digganteem ak mën a dem ca xare boo mi ay wayjur yoo xam ne dañ war a taxaw ak ci njaboot gu ndaw gu mu war a taxaw nekk di liggéey ngir taxawu leen ba tax demut ca xare ya moom ñu dem ca xare ñooyam moom it ci lañ cay a amee mën na ko cee amee moom itam loolu lépp day wane kon liggéey rek ni ko ci ko yonente bi sallallahu alayhi teg sëñ bi moo tax mu teg ko foofu soññee ci wane na it liggéey bi tax muy wax mooy liggéey buy buy maye lu lew waaye liggéey buy maye leneen taxul muy wax liggéey buy maye lu lew moo tax muy wax bokk na ci teslaay yi itam li ñuy tuddee xidma luñ ko mën a am liggéey yàlla lay doon liggéey yàlla liggéey moom nit ki day def lool da cay séntu lu ca jóge ñëw ci boppam moom mu jariñoo ko moo ko njabootam ak fu mu mën a àgg mu àgg fa bu dee xidma nag day def loolu liggéey boobu moom séntu ci njariñul moom njariñ lu teew waaye da koy defal keneen wala ñeneen loolu mooy xidma xidma boobu nag sëñ bi moom it da ko santaane fekk na mooy luñ xam ci tasawuf ci boppam nit ki de xidma mooy di liggéeyal liggéeyal liggéeyal ji nag liggéeyal ab sëriñam ci la waaye liggéeyal ñeneen tam ñu mat doon ci rek sëñ bi tudd na ci ñu bari liggéeyal sëriñ def na ko ci nit ki di liggéeyal sëriñam nit ki di liggéeyal ay way juróom nit ki di liggéeyal bu ko mag nit ki di liggéeyal ki koy jàngal nit ki di liggéeyal mboolem jullit ñi yooyu yëpp tudd na ko diggante ci euh, naatu fagaar xaaj ak ci masaalikul jinaan kon liggéeyal keneen wala ñeneen loolu tam dafa bokk ci cëslaa yi yoonu muy doonte lu ci am jeex yi itam murid yi liñ liñ taxawal xidma xidma googu moo ko maye liñ taxawal xidma moo ko maye xidma mooy nit ki di liggéeyal keneen di def loolu moom du njëriñu bopp moom du teew moo tax mu koy def njëriñ lañ ciy séntu daal mooy payug yàlla payug yàlla boobu teg liggéey bee moom liggéey bee dana ci séntu njëriñ lu teew war na teew séntu it payug yàlla ndax bu ko defee ci anam gi ko yàlla bëggee dana ci am payug yàlla am ci njëriñ lu teew la waaye bu dee xidma rek moom sëriñ ci njëriñu daaw luy dellu si ci moom waaye luy dellu ci keneen lay doon ñu tey séntu nag ngërëmul yàlla kon ku bëgg xam yoonu murit da nga naan yii dëgg-dëgg mooy yoonu murit yii ñooy ponk yi yii ci jëslaay yi lañ bokk ñooy ci ëpp solo kon ci ngir mën a xam yoonu murit xam-xam boo am njëriñ jëf ju baax yar ak teggiin fàggu lu leew ak xidma kon loolu mooy li lu njëkk li dëkkee njëkk li dëkkee loolu di dëkkee nag am na lu mën a gàllankoor am na lu mën a gàllankoor ñenn ñi ba du leen yomb kon mbir mi ci boppam day dëkkee waaye am na yeneen yuy dëkkee nag yoo xam dañuy taxaw ci diggante nit ki ak loola ku ne xam na ne am na yooy day jéem a gàllankoor xam-xam te sëñ bi ci boppam junj doon ko boppam doon na wax ne ku leen di teree sàkku xam-xam na ngeen xam ne tereem googu yi ak réer rek la ku leen di teree sàkku xam-xam na xam ne kooka moo fi nekkal seytaane kon ndaw ñi lay waxal ndaw ñi waxal te mën naa am am na ñuy ñuy def lu nuru loola ñoo xam ne danañ jéem a tàyyeel loo ndaw ci sàkku xam-xam boobaa nag day nuru kuy tere kuy tere sàkku xam-xam te boobaa dañuy ragal mu dugg ci ñoo ñu sëñ bi wax donc fi teewal seytaane wala doon koo xam ne ceeb réer la nekk loolu danay am jaamu yàlla te muy jëf ju baax am na ñu koy woyofal am na koy woyofal ñoo xam ne ku leen dégg mën naa tax mu woyofal ko moom itam kon loola xeetu xeetu gàllankoor la boo xam ne mën naa dox diggante nit ki ak mooy tënku ca loola am na ñu naan te lañ ci jublu rek mooy woyofal jaamu yàlla ndax foofa lañ koy waxe duñ dugg saxaar di yenu seeni bagaas duñ dugg saxaar di yenu seeni bagaas waaye dëgg-dëgg liñ bëgg mooy na dugg saxaar gi bopp dugg saxaar gi liñ bëgg dugg saxaar gi liñ bëgg waaye léeg-léeg am na ko luñ koy waxee day mel ne bootu la ñuy dugg ci saxaar gi dañ ci dugg ku ca duggut nag boo yenn na dugg boo nekkoon waaye danaa la duma dugg yenn sama bagaasam danga ko dugg la rek ndax dugg gi mooy sabab lu sabab lu àjjana ah, yonent bi dafa wax ne kenn la jëfam dul yóbbu amul kenn ku mën a jëf lu tax mu yaayoo àjjana amul yaayoo ko nga xam day mel ne àqam la jëf na lu ko jar amul kenn ku jëf lu jar àjjana ku mën a jëf lu jar àjjana ba nga ko waxee dañ ne ko ba ci yow ma ne ba ci man xanaa yàlla yërëm kon yërmande yàlla mooy tàbbal nit àjjana waaw yërmande yàlla jooju nag yàlla da ko wékk ci sabablu dafa wax ne sama yërmande lépp xaj na ci danaa ko defal nag ñi ragal yàlla kon mooy lépp xaj na ci waaye du ci dugal lépp wa rahmati wasi'at kulla shay fa sa aktubuha lilladina yattaquuna wa yutuuna zakata walladina hum bi ayatina yuminuun kon kiñ eh, jaamuloo yàlla dañ koy sabab lu loo sabab lu mooy def sabab buy tax yàlla yërëm ba tàbbal ko àjjana waaye du ñu jëfam moo koy tàbbal àjjana am na fu sëñ bi waxee ne am na ñuy topp seen njort boo leen digalee topp yàlla ñu ne ah yàlla daal bu ko soobee mu tàbbal ma àjjana tirutul ma koy topp sëñ bi dëgg la man na maa man na maa tàbbal àjjana koy topp sëñ man na kay waaye man na leneen itam sëñ bi ne yàlla man na ko man na leneen wax ne man naa tàbbal àjjana Abu Lahab wala abu jahal abu jahal man naa tàbbal aj sawar ajjana man faa tàbbal abu jahal waaye nag soobu ko soobu ko ajjana mën na faa tàbbal abu bakr ta soob na ko li ko soob nag mooy am xam ne ki nga xam ne day bañ a sabablu li yàlla yoon yoon wi nga xam ne moo jëmee àjjana dafa wax ne ndigal yi ndigal yi ñooy yoon yi jëm àjjana tere yi ñooy yoon yi jëm sawar saa boo sooboo yoonu àjjana da xam ne yaa ngi jëm àjjana waaye safaan bi itam noonu loolu la wax daat ne ci ci rafet njort ci rafet njort mooy ki nga xam ne day def lii tax a dem àjjana te yaakaara dem àjjana mooy day ne ci ndigal yi te yaakaara dem àjjana di moytu tere yi te yaakaara mucc ci sawara ndax def ndigal yi sababu dugg àjjana la bàyyi tere yi sababu mucc ci sawara la xam ne kii topp njort nag mooy ki nga xam ne day bëgg dugg àjjana te du def sabab yi mooy du def ndigal yi bëgg mucc ci sawara yi te du bàyyi tere yi kon jaamu yàlla du mooy tàbbal nit àjjana waaye nag mooy sabab bi koy yàlla yërëmi ba tàbbal ko àjjana noonu lañ ko alxuraan ak sunna leerale ak waxu sëñ bi kon yooyu ñooy murit yi waaye yi ciy dëkk itam yooyu am na ci yooyu yuy dëkkee la yuy dëkkee ci wàllu xam-xam ñi ko jéem ñi jéem a gàllankoor ñi sàkk xam-xam ñi jéem a woyofal ak jaamu yàlla yooyu yëpp biir yi dëkkee la bokk jëmmi yooyu ci boppam rek dañoo doon lu yomb ñu doon ci nag am yeneen gàllankoor yi taxaw diggante nit ci ak mën a am loolu lépp kon mooy lu njëkk li rek lu njëkk li te mooy xam ko xam ko ku nekk tarixa bu mu nekk dafa war a xam lan mooy ponk ya lan mooy cëslaay ya ko de yoon mooy joxe na ci misaal li ciy ponk yi ak li ciy lenn ci cëslaay la ca topp bu ko xamee ba noppi nag mu dund ko dund mu dund ko daanaka li ñu wax sax dund gi duggaale na ci waaye bu xamee ne xam-xam ci ponk yi la bokk muy sàkku xam-xam nag muy sàkku xam-xam bu xamee ne jaamu yàlla ci tesaa yi la bokk ci ponk yi muy jaamu yàlla bu xamee ne yar ak teggin ci ponk yi la bokk muy am ab yar ak ak i teggin bu xamee ne fàggu lu lew ci tesaa yi la bokk. muy fàggu lu lew bu xamee ne xidma ci islaam la bokk muy def xidma mooy muy fexe bay jariñ nit ñi bay jariñ nit ñi ba ñu yemale njariñam ci boppam ak njabootu boppam rek waaye di jariñ nit ñi ku ne mën naa jariñ nit ñi ndax ku ne am na lu ko yàlla may lu mën a jariñe nit ñi am na ku yàlla may xam-xam bu mën a jariñe nit ñi fataawa jariñ ji doon xidma ci moom am na ku yàlla may am am am war jariñ nit ñi mu doon xidma ci moom am na ku yàlla may xel mu rafet xel mu rafet moomu da ko war a dataa war jariñ nit ñi mu nekk xidma ci moom am na ku yàlla may daraja daraja am ba tey dataa war jariñ nit ñi am na Euh, yooyu yëpp kon ku yàlla may sax rek kàttanu yaram kàttanu yaram nii rek am na ku ko yàlla may kooka itam kàttanu yaramam mën na caa jëriñ nit ñi doon teg moom suñ Mor dañuy wax daana wax lu mel noonu daana wax ne yoon wi du manqué yooyu yooyu ñu tudd ku am xam-xam ku am xel mu rafet ku am alal ku am kàttanu yaram yooyu du ci manqué ku ci nekk nag lam ca am da koo war a andi bu boolee lépp rek mu doon njariñ lu ñëpp mën a bokk jariñoo waaye kon bu genn anam rek la xidma di amee waaye anam yu wuute yooyu yëpp euh, la xidma di amee ndax duñ ci wax ne genn nag moo ca moo ca gën ga ca des ndax lu nekk luñ soxla la lu nekk luñ soxla la te yëpp daje mooy tax euh, soxla yi mën a faju kon xidma boobu itam war nañ ci bàyyi xel di ko jëfee fàggu lu lew war nañ koy jëfee fàggu lu lew ni ma ko waxee sëñ bi dafa wax ne nañuy fàggu lu lew te luñ ca am ñu bañ koo yàq nañuy fàggu lu lew te lu ñu ca am ñu bañ koo yàq wa in wajadtahu falaa tudayyi'hu ومن يضيع الحلال ضيع kon ku ci am dara ci lu lew bu mu ko sànq mooy bu mu ko yàq yooyu kon ay dëkk la ci wàllu jëfe jëfe bi ginnaaw xam gi da ci wax topp muy jëfe sëñ Muntaxa dégg nañ mu koy wax dégg nañ ay yoon mu daan ko wax di wax ne sëñ bi luñ ci am rek ak bëgg moo nu ko may ak bëgg waaye nag xamuñ ko dunduñu ko xamuñu ko dunduñu ko dañ ko war a xam nag dañ ko war a dund dund mooy jëfe gi jëfe gi mu andi jëfe ko xam ko jëfe ko mu ne ñaar yooyu moom des na luñ ci amoo luñ ci amoo luñ ci am rek nan xam ne ak bëgg rek ci lañ ko amee waaye nag yaar yee daa war a am te des nañ mu wax ne nag kon war nañ koo xam war nañ koo dund mu yaar yooyu xam gi ak jëfe gi bu jëfe gi jàllee beneen lii lii dëkke man na wax ne jëfe gi itam ci ci ci ci dëkkaate moom li ñu waxoon ci la sàkku xam-xam am ñu ko jéem a gàllankoor wàllu jaamu yàlla am na koy jéem a gàll jéem woyofal yooyu yëpp ci biir yi dëkkee la dugg waaye ñetteelu yi dëkkee mooy jottali ko jottali mooy li nga nekk te mooy tarixa bi nga xam ko boo ko xamee jëfe ko boo ko jëfe itam nag jëm ko jottali ñeneen ndax da ngaa war a jàpp ne lu baax la loo yéene ñeneen ñi te ki nga xam ne moom nga topp moom li mu andi woon ñëpp la ko yéene woon yemale koon ci ñenn rek sëñ bu mag bi li mu andi woon andiwu koon rek ngir waa Bawol wala waa Sénégal wala nit ku ñuul waaye àddina sëkk la ko andi loon àddina sëkk itam la yéene ñu jariñu ci kon yàlla dogal mu wax mu wàcc ci ñoom mu feeñ ci ñoom ñu bañ lépp cee jot seen warugar la jot li ko ñeneen li ci des it noonu la war a lu baax daal bu bu bu ci jotee warugaram la it mu jéem ko jottali ñeneen kon jottali gi itam luy dëkkee la jottali gi mooy moom it am nay anam. am na anam yu mën a amee am na anam goog ñëpp ko war a man ñëpp ko war a man ñëpp ko war a jéem ñëpp ko war a jéem te mooy fexe ba jëfe gi rek jëfe jëmmi jëfe gi rek anamu jottalin la ndax ku koy jëfe rek keneen ku ko gis mën naa xemmeem lim nekk mën naa xemmeem lim nekk ngir tënk buñ ci tënk rek tam muy lu baax nga xam ne ne lu baax la kon nit ki bu nekkee bu amee lu baax tënku ci tënku gi ci tënku rek dund gi koy dund rek anamu jottali ko la ndax mën naa tax nit gis ko xemmeem ko ba dañ ko kumpa ba man bokk moom itam man jot loolu moom ñëpp la wax mooy jëfe géeg dund gi rek ku ko def rek anamuk jottali na waaye anamuk jottali ga ca des nag moom du ne ñëpp la war daa am ñu mu war ak ñooñ nag ñoom ñoo war a yem rek ci jëfe gi rek mu doon mu doon seen anamuk jottali muy nag jottali ci wax wala bind di jottali ci wax wala bind moom ñi xam ñoo ko war a def ñi xam ñu xam te am xel mu rafet ñu tuddee xikma mooy ñu am xam ak xam ba noppi am xel mu rafet mooy dañu xam ñu xam nuñ koy mën a joxe ñeneen bañ mën koo déglu ba di ko mën nangu ñooñu ñoo war a jottali waaye jottali gi ci la jottali gi itam ci la bokk ci warugar yi la bokk ginnaaw bu ñu ko xamee dund ko dañ ko war a jottali itam ci anam yooyu bind ak wax ñu xam ne lañ ko war a bàyyee ñu war a jottali ñeneen ndax ku xamul mën na jottali loo xam ne du ne dëgg-dëgg mooy yoon wi wala bu ci bokkee itam doon la jëpp solo ku xamut mën naa def loolu dama ci faral di joxe misaal rek dama daan gis ñi ne ci tim réew ñu fexe ba am tubaab bu mu ci lislaam dugal ko ci yoonu murit boobu ñoo koy fexem waaye daal dana am dana am seen biir waaye daana ko gis ñoo xam ne bu ñu bëggee wane ne dëgg dëgg dëgg dañ naan day wax wolof sax wala su su yére yi ñu koy solloo fexe ba muy sol suñu yére yi mel na bu ko solee rek kon ak taalibe mat na wala day wax wolof wala yoo xam ne daal dëgg dëgg bokkut ak wér gi dara sequt ak wér gi dara waaye ndax di ko jàngal li sëñ bi jàngale yooya sëñ it mën a caa bañ kon kooku bu jàppee ne ñu ngi jottali la ñuy jottali benn bu yëf yi wala ëpp ci solo wala amul ci solo sax ndax nit ki di di naan kafe wala muy sol yére yu wolof wala muy wax yu wolof wala yooyu ñëpp nag wax dëgg yàlla du ak murit du ak murit kon ko waral nag mooy kay jottali daa nekkul ku xam koo mën a xam dëgg-dëgg luy mbir mi loo xam solo ci mbir mi ku ci bokk loo xam ne bokku ci waaye ku ci bokkul rek yëti ku ci bokkul ab wolof a ñu bokk di sol di sol di sol yére yi wolof bu ci bokkutoon tam yére wolofam lay sol léegi eh, lu mel noonu kon jot li moom ci anam googu xam moo ko war a def waaye jot li ci la ci dëkkee la bokk waaye gàllankoor gi moom it ni ko waxee léegi mooy yi ci warta dugg di ci dugg yi ci warta dugg di ci dugg te li ma joxe léegi misaal ci nga xam ne li ñuy góorgóorloo lépp rek mooy fexe ba muy wax wolof wala fexe ba muy sol suñu yére wala fexe ba muy naan café wala yu mel noonu ndax dëgg yàlla loolu taxul ñuy wax loolu tam xeetu gàllankoor la ci wàllu jot léegi mu des nag ci yi nga xam dañuy day dëkkee te doon lu war ci ñu war a def ku ci tarixa wala ñi ne ñi ne ci tarixa dina kenn ku ne xëy waaye ñi ci tarixa daal war nañ koy aar aar war nañ koy aar aar aar gi itam am na ci lool ñëpp ko war a jéem ñu ko waxoon ci jot liggéey rek anamu ko aar goo xam ne moom ñëpp ci war a bokk waaye am na anamu ko aar goo xam ne daa am ñu ko féetewoo ñoo xam ñoom lañ ko war a bàyyee daanaka li ñuy wax ci jot li rek loolu lañuy wax ci aar itam ndax ñu ndax day daanaka sabaan bi rek la aar bi la ca jiitu te ñëpp war caa war koo bokk moom mooy kenn ku ne fexe ba duñ jaare ci moom bay sikkal yoon wi wax ñu di ko yàpp kenn ku ne fexe ba duñ jaare ci moom bay sikkal yoon wi maam di ko yàpp te rek mooy mu dund ko mu dund ko dëgg-dëgg mu dund ko dëgg-dëgg yoon ku ko dund dëgg-dëgg rek kenn du ci jaar kenn du jaar ci moom bi yàpp yoon ndax dañu gis moom lu luy tax ñu ko ñu yàq ñu ñu yàq yoon loolu nag ñëpp ci war a góorgóorlu ñun ñëpp ci jéem def loolu ba duñ jaar ci kenn ci nun di yàq yoon mbaa ñu sikkal yoon na ñoo xam ne mën nañoo yi mbaa ñu yàq ko te fekk daa am luñ gis ci ñuy tuddoo yoon yi loo xam ne loolaa tax buñ góorgóorloo ba loolu amul kon buntu booba day sàkk buntu booba day sàkk sëñ bi daana wax lu mel noonu daan wax na ngeen na ngeen nga xam ne dañuy tax ñu di ma bañ a jublu koo xam ne bu ko bu ko nit gisee te xamut sëñ bi te muy tuddoo sëñ bi nañ koy gisee day tax ba duñ xemmeem sëñ bi ndax dañuy jàpp ne nii mu mel da ko jële ci sëñ boobu si sëñ te ni mel wax dëgg yàlla taxul ñuy wax loolu la sëñ bi doon moytuloo loolu lañ war a moytu ñun itam nag ba kenn du doon bunt bu ñuy jaar ba mën a jab yoon yi wala ñuy mën a sikkal yoon yi loolu mooy kaaraange bu njëkk yi la ca des nag mooy nag loolu moom ni ma ko waxee du ñëpp a koy des la cay des mooy am na koo xam ne dana dana sikkal yoon wi mbaa mu sikkal sëñ bi dana wax ci sëñ bi lu dul noona mbaa mu wax yoon lu dul noona waaye la muy wax moom daa jàpp ne am na fu mu ko teg am na fu mu ko teg day naan li yëg li yëg li yëg lii moo tax mu wax lii mu wax kooka moom daa nuru koo xam ne day gëstu dëgg rek ndax dinaa li muy wax mu ngi koy jéem a teg ci ay cëslaay kooku day mel ne kuy gëstu dëgg rek ku mel ne kuy gëstu dëgg nag moom dañuy waxtaan ak moom dañuy waxtaan ak moom mooy dañ koy tontu kooku moom dañ koy tontu tontu nag moom it ñi xam ñoo koy def te am xel mu rafet moo ñu mën a ñi war ñiy bind ak wax rek ñooñu itam nag ñooy aar di tontu ci bind ak wax bu dee tontu li daal laaj ñu bind ñu bind tontu laajee ñu wax ñu wax waaye ñoo ñaa ko war a def nag ñeneen wóoruñu ko def ñi xam te xel mu rafet ñi nga xam ne ñoo mën a jottale wax ak bind ñooñu itam ñoo mën a ku mot a tontu. ki mat tontu nag mooy koo xam ne li muy wax mi ngi koy wutal fu ko teg ak lu mu woyof woyof woyof waaye moom jàpp na ne dëgër na jàpp na ne dëgër na kooku dañ koy jàppe ku ku ku kuy gëstu dëgër ñu tontu ko bu fekkee nag koo xam ne dañoo xam ne moom tooñ rek dëgg-dëgg day tooñ ndax li muy wax jéema koo teg fenn da ko wax noonu rek waaye jéema koo wutal jenn firnde di muy wax di ko wax ci sëñ bi mu juunu mbaa mu koy wax yoon ci yoon yi mu juunu jéema koo wutal jenn firnde da ko wax nii rek kooku day mel na kuy tooñ la moom ku bëgg bu naqari nit ñi rek la waaye gëstu dëgg taxu ko jóg kooka nag moom dañ ko war a yar Victoria na Dayton Victoria yar ko nag yoon lañ koy booleel mu yar ko yoon lañ koy booleel mu yar ko waaye itam diglewuñ kenn di fajal boppam diglewuñ kenn di fajal boppam yoon lañ koy booleel mu yar ko yoon lañ koy booleel mu teg ko daan yi nga xam ne yoon waajal na ko waajalal na ko ku def lu mel noonu yoonu Sénégal léegi waajal nañ lu mel noonu yoonu Sénégal léegi waajal nañ lu mel noonu kuy dëngee kilifa yi diine yi ku leen di dëngee yoon waajal na ay daan yuñ ko mën a daan ku mel noonu jërut di wax ak moom ndax du ku ñuy tontu ndax ku ñuy tontu mooy ku koo xam ne li muy wax mi ngi koy teg fenn bu ko defee fa mu koy teg nga mën wax ak moom li muy wax moom tooñ rek dëggul boobaa li ngay def mooy nekk xulóog moom loolu amul solo yow def naan ku ku miin sa la kon jërul di waxal boobaa day day doon ak xulóo rek xulóo lay doon rek wax nga wax moom day waxaat nga waxal rek waaye da nga koy yablu rek. mooy dañ ko yóbbu ci yoon rek dañ ko yóbbu ci yoon rek yoon jëflante ak moom moom mën naa du ko defati keneen ko xam ne bu ko defee itam luy fekk ci mën naa du ko defati ki nga xam ne nag li muy wax moom mi ngi koy wutal fu ko teg moo xam dëgër na moo xam dëgërul moom kooka moom yeyoon waxtaan ak moom tontu ko tontu ko waaye la jiitu nag mooy ñun ñëpp wuti na fexe ba bañ doon buntu bu kenn mën a jaar ba xeeb yoon yi wala muy sikkal yoon yi si ñëpp laa naa ne nii xëy na wees na cee mën a tàmbalee waxtaan euh, maa ngi jéggul nag di sant santaat di ndokkeel waat itam di ñaanal ñëpp jàmm di salaam wa rahmatulah wa barakaatu